yàggal ci wér yàlla nga yàgg yàlla nga wér may leen ko bu ko kenn bu ko kenn jóg bu kenn jóg ngir jëm sëñ Tuubaa toog leen bu kenn jóg may leen sëriñ bi nekk may leen ko mu ñëw may leen ko mu ñëw may leen ko mu ñëw bakkal fadlu yaa muxtaar siyaare naa Mbakke yaa sayyidal wara alayka salaamullah may leen ko mu toog mbokki Baye Fall yi taxaw ci ginnaaw oto bi. ngir ñu jëmmi Serigne Fallou àgg leen suuf àgg leen suuf àgg leen suuf waaw may leen sëñ bi Serigne Fallou ñu taxaw ci buntu place bi sëñ bi ci buntu jël jàllukaay bi ne ñëpp àgg suuf ku tedd ki di gis kanamam. nañ bàyyi yoon wi nañ bàyyi yoon wi. nañ bàyyi yoon wi. foofu da ngeen taxaw da ngeen tàggu suuf waaw. ma ne na ñëpp maa fi dégloo léegi ma ne na ñëpp maa fi dégloo. bàyyi baal bàyyi baal foofu na rafet nañ am suuf ñu ci ko toogaay yu rafet tàggu. Sëriñ bi nee na ko ak suuf. sëriñ bi nee na ñoo ñu ko taxaw ne leen nee leen bu aw si suuf àggal ma boo joxe waaw borom kër yëpp si fan bi ñoom lay dagaan ngaa ko suuf sëriñ bi moo joxe ndigal waaw ndigal moo ñuy jëriñ. toog leen waay. nañ téye nañ téye rajo yi sëriñ bi nee nañ téye rajo yi nañ déglu sëriñ bi. fatakat yi ak rajo yi nañ ñëpp fay mbokk yi nañ déglu sëriñ bi nee na aouzu billahi min asseytaani rajim barke xaadimul Moustapha barke Cheikh Ahmadul Fadil sëriñ bi nee na mi ngi nuyu mbokk taalibe yëpp mbokk jullit yëpp nee na góor ak jigéen mag ak ndaw gan ak dëkk nee na bàyyiwul kenn nee na li ci des ci nuyoo bi ngi jiital ci nuyoo bi sunu jëwrin sunu xalifa Cheikh Abdou Baraka xalifa Cheikh Mouhamadoul Fadel yàlla na fa yàgg te ak njabootu Sëriñ Tuubaa gépp ak njabootu Sëriñ Fallu gépp ak jëwrin yëpp ak taaliba yëpp ak bokk yëpp nee na mi ngi leen nuyu ci turu jëwrinam jeex jëwriñu Seex Abo muy Sëriñ Basiru Mbàkke moom Sëriñ Fallu yàlla na fi yàgg te wér muy jëwriñ ju mat yàlla na fi yàgg te ci barke Sëriñ Tuubaa ki nga xam ne moo yàgg yor kàddu kër gi di Seex Abdou Fatah di sunu mag di sunu xarit yàlla na fi yàgg te wér ak loolu lépp jawwul Sëriñ Fallu gépp rek ñeneen jëmoon Sëriñ Fallu gépp la nuyu ñu nuyu suñu mbokkum taalibe yi si Abdou Karim mii toog ak ñi mbokkul suñu fàllu ñu fi teew yëpp ñëpp ay taalibe lañ suñu abib mi teew suñu xabaan mi foon bàyyi sikkim suñu rafaa mi fi sëñ Fallou Bousso moom sëñ Abdou mi ngi toog ak bokkam yëpp rek bàyyiwuñ kenn nuyu na ñëpp bàyyiwuñ kenn Abdul Karim jërëjëfandi nee na jërëjëfandi ku mu koy wax mooy ku liggéey ak gut sa liggéey ak gut def na lu bare bari ci kanam loo xam ni incha allah kanam la jëm gis nañ ni nga fonke say mag ni nga fonke say taalibe fonke say bokk loolu ñëpp la loolu suñ fàllu moo la ko beral day am ñuy wax naan yéen da ngeen rasis déedéet si ciwul kat rasis ciwul kat dañoo bëggante rek koo gis sa bopp ku ne dafa nga ko jàpp ngir jëm si fallu nee na loolu du rasis ak bëggante la nee na loolu def naa kooku mën na ko def ayib de ñun daal bëggante nañu ngir jëm si fallu ku neex bëggante nañ ku naqari bëggante nañ rek waaye rasis ciwul nag. sëñ Abdou nee naa ko démb sarak yi fa tabaarakallah kenn ku ci nekk indi fi teraanga yoo xam ne man naa yor lii lépp muy liggéey fi te yooru yaa tax sa mbaax sa woyof ak say rak bëgg say mbokk bëgg say taalibe ñun day ñëwuñu kenn ci xalifa suñu xalifa bee day alhamdulilah rek nañ ko ñaanal yàgg fi ku am xëy bu mel ni si yow day santal yàlla te am nga xalifa bu jafe xalifa bu woyof bëgg ay rakkam bëgg ay bokkam bëgg ñëpp nee na mooy si yow mii nee naa ko yàlla na fi yàgg ci wér nee naa ko itam li fi sa mag yi li fi sa mag yu baax yi tooge woon seen ñaari toogaay yëpp na ko boole boole li nga dund gën a yàgg rek ndax yàlla mën na ko te am nañ ci yaakaar ne yàlla dana ko def incha allah te moo moo kon nag sëriñ bi wax na ni nee na laaj na jëwriñ Abo Ndiaye mu ne ko fu liggéey bu toll mu ne ko mu ne ko lépp àgg na ginnaaw toll bi ay jëwriñ ji man ndaw laa lu ñu yónni rek mu ne ginnaaw yaa ne àgg na nag dinaa bu ma demee danaa wax sëñ bi ne ko Abo Ndiaye daal nee àgg na kon àgg na kon jërë ngeen jëf. nee naa leen sànq. li ma leer moo di. ku ñëw àdduna day. ku ñëw madina booba day. doo bokk ku fi ñëwul. loolu waxoon naa ko. waaye nag nee na day ñaan nag ci barkeb Sëriñ Fallu ku teew madina sa aajo faju booy boo fi booy dem koo dajeel aajoom faju kookee kum dajeel aajoom faju ñu rek tool bi ak agam waaye na xam ni tool yii suñ toolu nun ni ko suñu amul seede sédde buru bi àggee nañ ko ji nañ ko war a jiyee bay ko am set wecc ñu deqi ko bàcc ko bees ko dajale ngooñ mi dajale gerte gi bàcc dugub ji dajale ko def ko ci saago jébbal ko si aboo loolu nii loolu loolu moo ci des yaakaar naa ci barke Sëñ Fallu yii wees yëpp bu baaxee bàggee ni mu baaxee nee na nee na yii wees ni mu baaxee yii jëmoo ñu moo koy raw insha allah kon nag jërë ngeen jëf nee na xolam set na ci dongo yu baax nee na mi ngi sant war a saar sa dongo bii Ah, nee na sa bopp bi nee na sa sëñ Fall rek moo ci ne. sëriñ bi nee na daal yeewi na ñëpp kon tey déglu ndigal rek nañ fexe ba mel ni soccet su soccet ba bu ñu leen. sëñ seetul moom bu may wër bëri bu yàgg. lem na ay laafam bu yàgg moom nañ mel ni soccet rek buñ fanaanee bu si biir suba lañ jóg rek ndax loolu mooy njariñ te ak ëllëg wasalaamaaleykum ngeen baal sëñ bi nee na sëñ Abdou Karim dafa wax ni mas naa dégg sëñ Mourtala di woote xelkom ba wax benn baat bu xorom bu yaatu ne ndëpp yi ñu ndëpp kuñ ci laal sab garame nga naaw saw rab sa rabu ndëpp buñ ko laalee nga naaw ba mu waxee loola ba rëpp nag mu ne ñun mooy suñ ndabu rëpp rabu rabu ndëpp <laughs> waaw waaw sëriñ bi nee dellu ga oto itam nañ daw ndànk ndax jërul yàkkamti nit bu defee lu baax ba noppi day tey nañ daw ndànk àgg ndànk nee na loolu mooy digal li kat nee na jëkkante nag dana jëru ko nee na ginnaaw liñ doon wut am nanu ko nee na jërul yàkkamti waaye toll la tàllal su fekk mu bëgg dara amul